level bi in in uh, Gambia music bi in beneen level ok beneen level waaw because ñun fu ñu nekk nii mhm. génne woon am na ñeneen ñu fi génne woon DVD waaw dag maa gis mhm. waaye yàgg na mhm. waaye still yaa ngi am artiste yi nga xam ñu ngi am talent xam nga si wàllum music bi si wàllum am nga liggéey art bi xam nga si si wàllum am nga defar sound so so so lu yan artiste ñoo fa ñoo fa bokk sax parce que waaw bëri na artiste yu fa nekk bëri na mm. yaa ngi am Mighty Joe yaa ngi am Baye Babu mhm. yaa ngi am Ses Ngom mhm. yaa ngi am Killa Ace xam mhm. nga yaa ngi am ah, ñoom Big Faa yaa ngi am Culiminary Trouble Smalls xam nga MLK Nova xam nga bari na daal xam nga ñooñu ñooñu yëpp laa jël boole leen pour indil leen lu ees daal man dëgg Morissa waaw moom moom sax waaw mu ngi si biir ah. sun pro waaw yéen waaye nag. waaw xam nga moom tamit si aar bi la bokk xam nga ñoom ñooy yi. moom la moom la moo future ok. si si moo tax ma ne moo mu sànni si dara. waaw waaw bés waaw lii dafa over important. Mm-hmm. like lii comme ni ko Koul ji waxee lii dafa like musta xew mm-hmm. lii is a very big step in Gambian music. xam nga lu xam nga ok xangal ma jaaxal you keep saying mustahil mustahil mm-hmm. lan moo nekk si DVD because mm-hmm. um, comme ni ko Mohamed waxee mm-hmm. yàgg na di gis DVD yu mel nii xëj na yàgg na rek waaye am na en seetaan nañ lan moo nekk si biir loo xam ne mosuñ koo gis bu mel nii bu mel nii ok yaay am artiste bi ñu ngi showcase li fi naam live performance am interview am behind scene am ok laay am many other things tamit ñoo defaree vidéo comme moo bokkul ji waxee ñoo defee musique mm-hmm. ok videos tamit moo tamit si DVD bi like ok xëy na mosa yoo defar DVD waaye façon boobu noonu façon bii mm-hmm. mm-hmm. suñ ko def format bi ok soo soo soo ma bëggoon xam ne yow yow ban surprise nga fa nga fa def ban xorom nga si sànni si biir DVD bi yow yow yow yow moom waaw hmm, xam bi daf dee naa ca time. ok bi hmm. moom mu ngi dëkk si naa ca rek. Hmm, bi waaw moom luñ plan moom mooy comme DVD bi moom luñ fa plan moom lu bëri lu mag lañ fa prendre. Mhm. comme nañ fa artiste comme daal lay gàmmee nañ gis loo xam ne nii daal suñ koo gis. waaw artiste daal. waaw ne a um, artiste nii. Mhm. xamuñ leen bu baax. Mhm. comme lu bëri nii xam ñu bëri seetaan seen live performance. ñu bëri seetaan seen behind the scenes. waaw seen ñu bëri seetaan seen interviews. waaw fu ngeen di ñaan ngoo trip rek. daa gis naa ok daa gis ne 21 gàmmee artiste moo nekk seen film bi. ak minimum. ak minimum. waaw 21 gàmmee. waaw 21 and waaw wul man mhm. si moo a moo tax ma bëgg a DVD waaw because behind the bay ba bëgg naa gis boobu wax saka xama bo sama bay ba di xëccoo yéen ba toogee si sareet bay ba bu toog na si sareet mbaa daanul non daanul waay waay waay na xam bi nag benn leen rek ah, lii ban njëriñ la mu am pour artistes yi ban njëriñ pour artistes yi waaw because artistes right now mm-hmm. ok ñu ngi am artistes is international ngi am ah, internet bi is mm. international mm-hmm. waaye lii yaa ngi am DVD bi nga xam ne lii mm-hmm. dañ ko mën a jam fu nekk outside the world jang jang maa gis mm-hmm. promoteurs yi nga yi nga xam ne ñu ngi outside the Gambia dañ mën a gis talent yi nga xam ne booy am nañ ko ah, jang maa gis booy dañ dee mën a ut dajale seen am nga seen shows nga pull seen ko waaye bii dafa mel ni keneen moo la ko dajale am nga geneen la ko si wool bi pour nit yëpp mën a gis donc Thiaré famille daal DVD bi lu bari la umba ah. waaw lu bari la umba waaye waaye nga nga ne am na comédie tamit rek théâtre hmm, soo ñoo ñan ngeen future foofu noonu ndax suñu comédien yi bari nañ léegi trop hmm. bariwut nag waaye hmm. yaa ngi am naasi bi ak ndings <laughs> waaw bro mi sam na def na fa lu grave waaw waay waay kul ji soo di bi sax loolu ko paree def yéen sax dañ ko paree loñ dañ ko paree loñ jàkkaarloo ok ok very good ah ak live band live band foofu ma ni artiste yi waaw yëpp ndax artiste yëpp ok nekk si DVD bi yëpp waaw ak dinañ am tamit li nga xam ne tamit dañoo showcase DVD bi DVD bi dañ koo play. Ah, dañ koo play dañ mm-hmm. play one hour DVD. Mm-hmm. after nga ñëw am leneen tamit mu ngi si biir moo nekka mm-hmm. ah something like a class. lyrical class. waaw mu nekka kii dafaa ñëw on stage. Benjamin. Maha dafaa ñëw on stage. waaye ku nekk da ngaa woy. gis nga. ku nekk da ngaa woy. gis soo woyee. ne sa morom nga may chance sa morom sa morom wuy mhm. ñu seet daal xam nga daal nekkul ne dañoo seet kan moo daaxa wuy mhm. waaye dañoo dañoo bëgg a indi daal ñoom ñëpp tuggee mhm. da na Gambie bi xam nga mu gën a dem si kanam daal waaye waaye waaye biir studio benn tey ñu fi amee ku mag waaw ah, boobu mooy king bi man maay prince bi waaw so nga ne am na di nga ne jox ma ko jox ma nga king waaw comme I'm not the king, eh? neither the prince, eh? but I'm the strength in every kind of music. Eh? Just hear me sing. The water bring, make the whole of them run, come choose me. Assalamu alaikum, Gambia, the new everybody could sit and right now. Mm. This your boy Mahadi Hammer, Yo. the man with the grammar Zimmy. So Maha Chari Chari, don't go like this Hammer. dajal ma ko moom ah, moom moom la la si doon moom xama xama xama la la si doon si DVD bi. <laughs> xanaa li li li pël yi di wax ayam tiital li tiital. nekk loolu moo dal <laughs> ba poli la I am tiited li tiited comme bu wax naa bu ees ah. non poli dañ jël bëgg a jël tiit rek xam nga lifin ko def ko angale nice waaw so I am tiited li tiited welcome to the show thank you very much DVD bi. waaw comme noonu DVD bi ah, man mm. right now maa ngi fi di teewal artistes yi. Ah, comme suma moromi artistes yoo xam na ni day indi thing right now comme mm. ñun ñoo fi teewal gars understand mm. comme am nañ many more behind. like man dama fi nekk pour wax on their behalf. Mm-hmm. understand ok léegi um, producer bi producer wax na um, si gis-gisam njëriñ yi si njëriñ yi artistes yi di jëlee si DVD bi. Mm-hmm. Um, from an artist. point of view mm-hmm. you're nga foog um, DVD non la leen a DVD it's a big promotion mm-hmm. pour yéen mm-hmm. artist ah. because right now ok DVD we expect nañ mu all over the world But but it's something that is very unique Come, yaaga nañ di am DVDs ah, yaaga nañ di am documentaries understand but this one it's one of a kind Come, dafa over special Come, nini fancy out there Maybe then they talk toog di videos Mm-hmm. di déglu suñ tracks mu neex ak ñoom di ñu déglu on interviews understand mm-hmm. nga but duñ dee xam exactly lañ leen dee daj behind the scenes mm-hmm. understand mm-hmm. comme léegi pour ñu indil leen des DVD won leen ñun exactly lan lañ dee daj mm-hmm. comme won leen videos yi nuñ ci dee coono balaa moo nekk lu nice soo dee mm-hmm. mel ak sa DJ si interview télé bi right as well understand comme dafaa tax ba ñoom seen bopp dañ la dee gën a fiil dañ laa gën a yërëm nañ gën a xam yow coono boo dee daj pour yow nga mun leen a bégal ñu xam ne fayu leen ñu xam ne dëgg dëgg ñun foofu <laughs> ok ok so uh, it's it's it's really big man ok moo xam di kontaan si loolu bu baax a baax waaye léegi li ñooy def rek caari ma bëggoon rek ah, a ah, mu tax mu plan ñu tuddi si ah, film boobu noonu promo bi mhm. waaw si DVD bi ñu mun a jëlangum na three minutes bi rek suñu am na keneen ku mag ku fi nekk ki nga xam ne war nañ ko si mbir yi waaw si kanam tuuti rek ñu jëlangum short break కోటుమా హలిబీ కోటుమా ఏ యాయి సమరేను హో కోటుమా నికుము కోటుమా కొట్టుకో ma su la lu dul waaye man su ma damay feebar ci mbëggeel léeg-léeg dang ci jooy léeg-léeg nga ci reetaan gisuma ko gisul ma xol yaa ngi laaj mbëggeeloo